bokk jullit yi mbokk taalibé yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ci ndigalu sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke xalif général des mourides yal na fi yàgg lool te ànd ak wér ci ndigal ak kilifteefu sëriñ Cheikh Mbàkke xalifa sëriñ Abdoulahi Mbàkke borom dër bi ak mboolem jabootuk sëriñ Abdoulahi Mbàkke borom dër bi daayira salaam surtout sëriñ Abdoulahi Mbàkke borom dër bi ñoo am mbégte di yëgle ko woote conférence bi nuy amal at mu nekk di waxtaanu diine wi nuy waajale màggaluk Touba Darou Rahman ñu koy amal àllarba ñaar fukki fan ci weeru mars 2019 ca Touba Darou Rahman li ko dale 21 ko Serigne Souhaïbou Mbacké ibnu Cheikhul Khadim dara jaale ko Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké xalifa Serigne Souhaïbou Mbacké Serigne Abdou Samad Souhaïbou ak njabootuk Serigne Souhaïbou gépp thème bi njàngalem ku tedd ki Serigne Touba Khadimou Rassoul conférencier ba Serigne Fallou Bousso Assane muy conférence waajtaayu màggaluk Touba Darou Rahman Daïra Salam surtout Serigne Abdoulahi Mbacké borom dër bi di ko yëgal njabootuk Serigne Touba gépp mbokku taalibé yi yépp mboolem këru diine yi soppe yi xarit yi ak wóllëre yi àllarba lay doon ñaar fukki fan ci weeru mars 2019 21 heures ca gannaaw ëllëg si nag di ajjuma ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars di bésu màggal gi ca Touba Daaru Rahman ñuy ñaan képp ku ko teewe mu doon sag defaru àddina ak alaxira ci barke Serigne Touba darajay Serigne Abdoulahi Mbacke borom dër